ñu wax ci euh, série bi di Cœur brisé wax nga ci léegi ci mbiru Adjiza mhm. donc euh, gis nañ ne Léna Gueye mhm. euh, rejoindre na série bi mais am na coow de waaw Léna Gueye sénégalais yi nag ñoo ko doon laajte ah mhm. sénégalais yi ñoo doon bind ci commentaire yi comme quoi que Léna war na mën a ñëw ci li nga xam ne moom mooy série bii di Cœur brisé parce que tojoon na infidèle bi ku ne xam na Léna à ses débuts fi mu jaaroon mbetteel la jaar ci groupe bu Serigne Gagne mu nekkoon série bu ñëpp doon seetaan série boo xamante ne vraiment day retracé waat li nga xam ne rek moom mooy viwu sénégalais yi dugg si kër yi quand même lu sénégalais yi doon dund euh, lañ doon indi aussi seen habillement yi aussi niñ seen accoutrement yi plutôt niñ doon solo lépp doon loo xam ne bu ñu koy xool c'était à la donc bi ñu fa jógee dañu gis euh, leena ñëw ci série infidèle bi nga xam ne boobu jamono ñëpp jàppoon nañ que série bi série la woon boo xam ne nit ñi rafetlu wuñ ko parce que kàddu yi mhm. ak wax yi nga xam ne aussi moom lañ fa doon wax aussi mu nekkoon mbir moo xamante ne euh, bon série la boo xamante ne quand même fekkee sénégalais ñu ngi ko doon seetaan mais amoon na benn moment euh, amoon na ay coow yu ci amoon ay mhm. jafe parce que tout simplement gisoon nañ ni que série la bu doon pervertir li nga xam ne moom mooy ndaw ñi ñu juge foofu gis leena vraiment mu woon fa benn rôle boo xamante ne pour la première fois quand même ñu gis Sénégal jigéen boo xamante ne ci série bi day ngeen baal ma ci bi day jël ay soutien sandi jël ay euh, tuba yu njiitlaay mhm. sumi ko sandi ci ay seen yoo xamante ne vraiment ci jigéen ci Sénégal mhm. mu doonoon mbir boo xamante ne sénégalais yëpp waxoon nañ ci loolee fa mu mujjee woon mooy euh, waa OMC Jamra yi nga xam ne gis nañu à fois rek dañuy jéem a fexe di redressé waat yi ngir mën a fexe rek sàmb li nga xam ne moom mooy jikko yi ak nekk nekkinu ñenn ñi ci dëkk bi amoon liggéey bu ñu fa defoon mm-hmm. ba finalement amoon nañ ci dëgg ba troisième saison bi mujjuloon jaar ci benn télévision ci noonee la leen a ñëwaatee ci série bi di kër brisé ci épisode 17 bi <coughs> voilà si je ne me mhm. trompe pas mhm. ci épisode 17 bi mhm. moom leena mu ñëw ci euh, nekk ci ci li nga xam ne moom mooy ci piscine bi di sangu ak ki nga xam ne moom mooy Souleymane Awalaay que tout le monde connaît parce que mi ngi woon subateel di liggéey ak Sidi Diop donc nekk ci piscine bi di di sangu ak ku góor ki donc di indi position écartée ak yu mel ni euh, daal mu mu mel ni daal koo xamante ne vraiment mhm. euh, mi ngi mi ngi mi mi ngi def quand lu lu lu lu lu lu waroo ak li nga xam ne vraiment moom mooy suñuy ay valeur quand muy mbir moo xamante ne sénégalais yi ci ñaari fan yi ba ci ñetti fan ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ci koo xamante ne génnoon nga ci benn bon série boo xamante ne coow la juróon ba nit ñi ba ba ba producteur bi. Mhm. nekkoon di yëg di wàcc ci wàllum yoon quand même. ñëwaat ci Cœur brisé aussi defaat fa li nu mel donc ñëpp xëy di ko waxtaanee muy mbir moo xamante ne abi démb. Mhm. defoon na tollé bu baax a baax te euh, nit ñu bëri ñu ngi doon wax ci toile bi <laughs> yeneen commentaire yi. ñëw na ba di laajte ba xam ndax leena moom personnellement mi ngi bàyyi xel ëllëg. Ah. parce que koo xam ne jigéen nga. donc nga nekk yaay aussi donc <coughs> bëgg a amaat borom kër amaat yeneen i njaboot aussi donc euh, muy mbir moo xamante ne vraiment euh, sénégalais ñu ngi koy ñaaw lu baax a baax gis nga image bi mu ngi nii. muy mbir moo xamante ne bi ko sénégalais gisee ba tey ñu ngi continuer di ci wax ba tey donc di di di ñaawlu mbir mi mbir mi nag Mame Makhtar Gueye bu Jamra démb génnaan na aussi bon suñuy naataango yu nekk sans limite donc ñoo doon def émission donc moom maam Makhtar Gueye sax mi nga xam ne ni sax ñoo ñoo ko interpellé encore pour xamal ko ni li ni mel xewaat na ci mbir mi donc ci ci niñ ko déggee mi ngi leen di gërëm aussi ci la fekk ñu ñu ñu ñu attiré waat attention am ci li ni mel muy xam ne ni que du ñu bàyyiwaat mbir mi mu jàll te dinañ ci def seen liggéey bu am bu bu bu mucc ayib. Euh, defaat ko comme ni ñu defee woon ci euh, mbirum infidèle bi mu fi ñëwee woon donc muy muy mbir moo xamante ne vraiment mbir la bu ñëpp di ñaawlu parce que tout simplement parce que tout simplement ay sénégalais lañu benn ñaareel ba mooy euh, suñuy ay ay valeur am na yoo xamante ne bokku ci donc cinéma lu mu neex neex lu mu lay fay fay fay am na yenn yoo xamante ne étant une femme war na lu ko mun a bañ a jaral voilà mm-hmm. Sénégal de baaxoowuñu loolu wax dëgg mhm. fa yàlla mhm. donc da di loo xamante ne da lay topp à vie dëgg la ndax saa bu say doom taxawee dañu ne yaay doomu diw mhm. donc image yooyu du fay daal lu mët a xel la xaalis jaru ko <laughs> dëgg la tur jaru ko donc leena yàlla baax na dëgg la muy mbir moo xamante ne démb moom la moom la ñëpp doon waxtaan quand même leena ah, leena de dégg naa porté woon na fi plainte Eva Eva bi nekkoon fee Eva bi nekk euh, ban ban seen la nekkati sax. daa ñeme euh, Seneweb daa mais ñun bu ñu ay mbiram tuuti rek daf na cee ñun moom tontonte bu ñu wax dëgg yàlla on est là euh, pour juste faire li nga xam ne moom moo ñu fi teg. booy yedd da ngay ku neex yedd. <laughs> waaye di waxal nit moom <laughs> mu indil la attroupement moom am na leneen lu ko tëggal la <laughs> li xale naan tëggal la amuñu jot boobu sax am na leneen lu ko gën waaw <laughs> ah, gis nga vi kii yaay noonu donc seen yaay noonu mu ngee mbir yoo xamante ne quand même voilà bon sénégalais yi ñaawlu nañ ko trop trop voilà mais bon on espère bien que bon ni Sénégalais yi génnee. wax parce bu dee culture tubaab yi la ñun nit ñu ñuul amuñu culture. amuñu culture boobu même bu fekkee ne am na yeneen dëkk africain yi nga xam ne ñu ngi koy. def dañ koy def ñun décence la ñu xamee ñun Sénégal te mhm. beneen bi. mën di ko waxaat di ko waxaat gis nga producteurs yi nga xam ne ñoom ñoo yor ay série jamais ñu jël koo xamante sa jege na leen wala ñu bokk ak moom koñ boole ko ci série bi di ko def loolu. mais na defal naa gis nga am na benn jour euh, pot mos naa koo wax. Mhm. néew ma leen noonu la mel de. Mhm. buñ ma wax loolu ma waxul. Mhm. mais Pod nee na à chaque fois ñoom bu ñuy def casting. Mhm. buñ lay jouer loo rôle. c'est parce que dañuy xam ne rôle bi yow mën nga ko jouer. rôle boo mënul jouer. duñ la ko jouer loo. dëgg la dem ba jël exemple rôle béti bëri histoire. pànk et tout ça. nee rôle boobu noonu suñ ko joxoon Marichou fii ba suba du ko jouer. parce que du genre boobu. donc ñoom si seen casting dañuy. Euh, euh, dañuy dañuy kiiwaale dañuy teniraale compte. dëgg la ci ci personnalité nit ki. Mhm, mhm. donc ñu ñu ñu ñu xoolaat seen bopp bu baax beneen bi mooy beneen mooy euh, jabaru ngaaka belende bi Fatel. Mhm. dafa mus a def benn sortie boo xam ne moom moo tax mën naw ko ba tey Fatel. Mm, parce que bi mu jógee ci série boobu di Virginie. waa Raf Pro dañ ko woon quoi pour mu bokk ci série valeur. bi ñu ko owee téléphone mu ñëw pour mu def contrat bi. mu xool contrat bi nee leen dinaa nangu jouer ak yéen mais lii ak lii duma ko jouer lii ak lii duma ko jouer parce que man doomu doomu tukkuleur laa xaw ma doomu mm-hmm. alpulaar laa mm-hmm. te jullit laa aussi te sama diine mayu mu ma def yenn yi donc ji nga jour bi ma déggee Fatel wax loolu xamuma ko de mosuma ko gis mais jour boobu laa naw xale jour boobu laa ko naw ba tey parce que mi Fatel kan moo ko dàq Sénégal kenn dàq ko xale bu rafet la xale la boo xamante ne ci boobu ñu mu ci tool c'était bien avant sax muy sëy ak Ngaaka Blindé mënoon na def comme ni xale yi di def nii def yenn seen yi xam nga mais mu gëm ni que moom tôt ou dafa war a am jëkkër et doomu alpulaar la yenn yi musu ko def yenn yi waru ko def même sumbulu aussi loolu moom moo tax ma naw ko. Mhm. loolu moom moo tax ma naw ko. gis ah, nga gis nga gis nga gis nga bi histoire série commencé fii ci dama koy wax di ko waxaat moom mooy seule actrice boo xamante ne bi mu xewee ba tey c'est bien na avant wiiri wiiri am na yeneen série fi xewoon moom bi mu ñëwee ba tey menn moom ngay dégg bu ñu ne la ban actrice moom moo fi gën a siiw moom lañ leen njëkk tuddal te depuis combien de temps joué wul mais feex na bay sàmm ay valeur am ci série yi ji nga dem na ba am jëkkër ni lu ko ñëpp nawee très bien mi ngi mhm. noonu sàmm sàmm say cër quand même donc li ñuy wax nii waxuñ pour comparer. mais dañu gis ñi nga xam ne vraiment ñu ngi ci milieu bi. dañuy servir d'exemple voilà mais mais li ñuy joué. joué mm-hmm. nañ ko ba fii ñu toll mosuñu def lenn loo xamante ne dañ leen di duut baaraam donc nañuy jël ñooñu comme exemple donc wane say cër. ñàkk woon na say cër. teew teew laa am xaalis teew teew laa am. alal teew laa am ay ay ngi si donc joué nañ ba épisode di set gisuñu fi yenn kenn mësu ko gis parce que day dépendre rek ci seen ay ay ay. Mhm. ci seen ay zara dama koy wax di ko répété. producteurs yi nga xam ne ñooy jouéloo ñenn ñi duñ ko jouéloo seen ay doom wala seen ay sœur beneen bi également mooy. bañ nañ ko ba ñoom la plupart de ñi nga xam ne man am na ci ñoo xam ne xam naa leen am na ci ñoo xam ne dañuy jël ñi nga xam ne seen ay koñ la ñuy dëkk. Mhm. connaissance bi ñu am joué loo leen mais ñooñu ñuy jël seen koñ duñ leen mës a joué loo loo xamante ne bu ñu génnee dañ leen naan yow li la kii joué loo wala la kii joué loo comme pour dire que ku leen jege du ñu leen ko suyaloo yow nag bu la xaalis. non affaire bi sax casting la. donc da ngay tëral benn projet. ñoom ñu ñëw casting. mais mais mais am na ñoo xam te ne mhm. casting ciblé la parce que lee na euh, ñu bëri ñu ngi fi ñu seetaan cœur brisé. turam dañ ko doon dañ ko doon mentionné di ko réclamer dañ ko doon mentionné di ko réclamer pour mu mhm. dugg te noonee sax lañ commencé di réclamer ay boobaa bi ne woon infidèle di leen réclamer pour ñu ñëw dugg si comme pour dire que. leer na casting am c'est un casting ciblé. Mhm. am na ñoo xamante ne mën nañu jouer benn produit production ci même même maison de production ñu woo la pour nga ñëwaat boo ñëwee xam nañ fi nga mënee dañuy ñëw tegaat la donc muy ay mbir yoo xam ne pour man nga dem ba benn moment ñuy saisir li nga xam ne moom mooy yoon aussi di yëg di wàcc ci loo xamante ne euh, xaalis nga cee am mais doo ci am wuy bu rafet pour man mhm. jaru ko quoi donc suñu sœur la. li ñuy wax ni waxuñ ko pour mm. vexer kenn wala dara yaay wax dañ koy wax parce tout simplement gis nañ ñu que ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk aussi suñuy ay rakk aussi donc ñoom la ñuy bàyyi xel ñu gën a rafetaatal mbir mi incha allah am nga jotu tontu. non man nag kaa nag wax la benn affaire <laughs> kaa nag ma wax la benn affaire man jotu tontanteeg yooyu wax dëgg yàlla. bul wax voilà taxuloon taxuloon ma ñëw. tontu yi mënuñoo ébranler te ñu ngi fi dañuy mm. liggéey suñuy liggéey parce que moom moo ñu fi tax a tax a mais abi